Sall est-ce que décevoir un peu si le mot trop fort nga baal ma. Euh, ñi nga xam ne ñooy ses euh, premiers compagnons. parce que Amadou Ba il n'est venu qu'en avant ça il a eu des gens yoo xam ne ils ont sué euh, pour le parti. je pense que choix yu mel noonu yaakaar naa ne waruñu nekk un choix boo xam ne affect la wala affection la wala xool la. Mhm. da ngay xool ñëpp moom xam na ñëpp pratiqué na ñëpp mooy ci biir parti bi. mu nekk également ci état. Mhm. donc bu jël temps également initier un processus inclusif dugal ci même les gens de la grande coalition majoritaire. waaw ku ci mel ne Fada ku ci ay auditions ay concertations ay rencontres. qui ont pris du temps. Moustapha Niass effectivement mais xam nga loolu yëpp lu am solo la parce que booy choisir. pour une grande coalition comme la coalition Benno Bokk Yaakaar booy choisir koo xam ne aussi suba gën suba mën nañ ko dénk les destinées du Sénégal. oui mais maanaam nekkul loo xam ne. dañ koy def à la légère. il faut prendre le temps utile et je pense loolu. def nañ ko est-ce que mënuñ jàpp ne temps bi mu jël ñàkk déggoo moo ko waraloon parce que aussi euh, bi ñu annoncé bi ñu annoncé que moom la choisir euh, bruit am na après ku ci mel ne Aly Ngouille Ndiaye il a rendu le tablier Mame Boye Diao il va parler à la presse demain Abdoulaye Daouda Diallo gis nañ ne am na ñu naan il va bon on ne pas encore mais voilà xam nga loolu yëpp mhm. jusqu'à présent waxagoo ne am na ku dem Aly Ngouille Ndiaye non li ma dëgg mooy démissionné démissionné na ci gouvernement bi mhm. est-ce def na leneen déggaguma ko maam booy jaw bi nga tudd da day def sorti demain allah xamaguma lan lay wax. Mhm. ñeneen ñi kenn waxul. kenn waxagul. man li ma yaakaar li ma yaakaar. Mhm. mooy te li may ñaan mooy le choix du président le choix des plénipotentiaires de la grande coalition ñëpp mën ko respecter parce que c'est uni. Mm -hmm. soudé solidaire c'est là où. on pourra vaincre facilement. ça c'est et ñoom ñëpp ku nekk ci ñoom à un moment donné yaa ngi wax ne président kat am naa confiance ci moom président kat defal na ma lii président kat moo tax tey peut-être euh, ñoo xam ma wala ma occupé telle ou station. Mm-hmm. c'est le moment nag ku nekk également aussi mën a exprimer effectivement en retour une certaine reconnaissance au chef de l'État c'est un choix boo xam ne. nekkul moom dafa tëju rek ñëw ne la ah ki leen imposé. te yéen sax da ngeen mën ne ah monsieur le président jox leen carte blanche mu déglu leen waxtaan rek yéen yaakaar ne ah ci fu ñu tollu ci jamono kii kat même bu dee ku nekk ci yéen mënoon na nekk candidat yaakaar na ne kii laa tànn te kuy tànn nag da ngay éliminer mais c'est pas que dama ko bañ c'est pas que wóoluwuma ko mais da nga yaakaar ne rek kii mooy le mieux placé ci contexte bi ñu nekk.